Mohamed mu Ba moo ñu ko nafaral. dal leen ak jaam commerçant yi nekk Sandaga daanaka am nañ lu ñuy woowee sursis ko nekk xam na démb moo nekkoon dernier délai balaa ndaraan ñi di dugg di rajaxe jëlee foofu marché bi di ko raser complètement sama naataango yi ñu laaj ko lan moo tax gouvernement bi nguur gi reculé Abdou Karim na ak di ali Ngouille Ndiaye reculé ñu laaj sama naataango lan moo waral nu mel ne waaw yàlla jàppale commerçant yi ndaxte président Macky dégg na boo xamante ni commerçant yi ak autorité ñu ko doon def fam sama tàngo yi ne ah marché bi nag ñu ko may sursu rek de ndaxte fu ñu demee ba tabaski teg ñaari fan dañuy kon indi ndaraan yi xaase ko sama tàngo ne ah Macky am mode compréhension daanaka Sandaga dañ ko sauver de justice gannaaw ñaane njëkk ak ay médiateurs yu bëri yoo xamante ni bokk nañ ci journal L'Observateur ne bokk na ci kii di Malick Gakou bokk na ci Grand Serigne de Dakar bokk xalif général des mourides ñoom ñëpp ñoo ñaan njëkk pour commerçant yi ñu leen di may li nu mel la sama naataango ne ah am nañ lu ñu bëggoon waaye bu baax état bi daanaka dafa reculer ñu laajaat sama naataango lan ma wax li nu mel mu ne ah man ma lii la ñuy wax daaw lii la waxoon autorité bu ñu bëggee raser marché bi lañ leen newoon nañ leen may ñu jaay ba pare tabaski bi jeexee ñu mën a kon def luñ bëgg a def gars yi dañuy bi loolu jeexee bi ñu bëggee raser marché bi ñoom dañoo newoon seen bagage ñu ngi foofu nañ leen may ñu ñibbi si ndakaaru kon yëf yi noonu la continuer ba tey jii nii daanaka def na un an sama naataango ne ah commerçant yi dañuy naxee ak muus ñoom daanaka dañuy def lu ñuy woowee une fuite en avant su ko defee ñu bañ a toj marché boobule may leen espace bu ñu jaayee waaye nag ndax ñun dañuy mën a voyager dugg ci espace Europe bi ci Covid bi Europe am na ay réew yoo xamante ni nee na leen mayu leen ñu dem foofu leen man xataango ne ah Sénégal nee nañ bokkul ci boobu boobule moo ne de Union européenne nee woon na Sénégal mi ngi ci liste boobule ñu laaj sama naataango lan moo xew journal Le Quotidien ne man de daal jot na dalal ambassadeur maa ngay sol Sénégal bokk na ci wala bokk mu ne ah man de man bu dee yàlla itam ah nañ waxante dëgg Sénégal bokk ci fu mu toll ni Sénégal techniquement bokk ci waaw loolu laa mën a wax journal l'observateur ne waaw Irène Mangasson lan la nekk di wax sama naataango bi l'observateur ne ma wax leen nag tey lan moo tax gars yi waa premièrement dafa fekk kii di ministre des affaires étrangères Amadou Ba jot na dalal kii di Irène Mangasson waxtaan ak moom ne ko ah yow lu nga xam noonu yow yaa ko wax wala lan la ah bi ñu waxtaanee Irène Mangasson ci la changé ne ah, techniquement Sénégal bokk ci ñu laaj waaw techniquement lu muy wax noonu loolu mooy laaj ah moom nag mu ne boo xoolee bu baax nu mu mënta mel Sénégal munoo voyager avant le quinze ndaxte. ci lañ ubbi frontière aérienne yi ku ne xam na lu mel kon techniquement mënul nekk moo tax dañ ci war a liggéey su ko defee balaa ñu yegg foofu Sénégal bañ a nekk ci zone rouge boobu leen ma naataangoo ne ah langage diplomatique bii de doy na waa ci la sama naataangoo jox parole ay nit ñoo xamante ni daanaka mën nañ décrypter langage diplomatique ñooñu ne nu mënta mel Sénégal ak Union européenne mën nañ liggéey ci wàllu wóole balaa ñuy ubbi frontières yi su ko defee loolu mën a antu ndaxte ku nekk xam na tous les quinze jours Union européenne day xoolaat liste boobule xool ndax am na amélioration su ko defee kon yëfi avancé ci wàllu woobule sama naataango bi di journal lii quotidien ne nu mantamel Sénégal na góorgóorlu ci wàllu woobule ndaxte bu fekkee ni def na réciprocité daanaka suñu touriste day day benn yoon suñu touriste daanaka virus bi rey na ko pare kon bu fekkee ni touriste yi mënuñ ñëw Sénégal ah nañ ne rek ñu dee nañ benn yoon lool la moo tax sama naataango bi di journal ne ah kii di Alioune Sarr ministre tourisme dina waxtaan kon ak union européenne dina leen dalal le 7 juillet yi ñëw su ko defee ñu xam lu xew ci wàllu woowule daan moo xew ba ñaari nit ñoo xamante ni daanaka ci daay shinga lañ bokk nekk ay nitu Eumeu Sène dóor benn nit ba gaañ ko mu jaaree fa ñàkk bakkanam sama naataango bi di l'observateur ne gaayu Eumeu Sène yooyu dañoo jàppoon ni kooku dafa bëggoon sàcc oto Eumeu Sène bi waaw daf ko bëggoon sàcc ñu jàpp ko ñu ko jàppee dóor dóor dóor dóor ba mu bëgg a dee yóbbu gendarmerie biñ ko yóbbee gendarmerie daanaka presque ku dee lañ fa yóbbu ndaxte yàggu fa mu jaar fa ñàkk bakkanam ndaataanga ne ah looloo tax sa ñaari nit ñu njort ni ñoo def li nu mel neen arrêté te fu mu toll nii daanaka ñu ngi ci euh, gendarmerie kii di euh, Bamba Ndiaye moom daanaka génn na àdduna waaw sama naataangooy loolu lañ wax ancien ministre des affaires religieuses ci Abdoulaye Wade gaañu na ci hôpital principal bu Dakar démb sama naataango bi di l'observateur ne ah Bamba Ndiaye laj en un de l'islam koo xamante ni daanaka xamoon na bu baax a baax l'islam nekkoon imam am xam-xam lool ci wàllu religion sama naataangooy ne ah kii daanaka Covid 19 bi moo ko rey ndaxte ku nekk xam na amoon na ko moo tax ñu yóbboon ko internet ko ci hôpital principal bu Dakar sama naataango bi di journal L'As ne à ah, Bamba Ndiaye emporté par la Covid 19 le quotidien ne le dernier prêche de Bamba Ndiaye ndaxte imam la woon ñu jeexale sport ak journal record mi xëy wax ci match bi nara am ci dimanche bi diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Aston Villa sama naataango ne ah Sadio et les pour se relever gannaaw biñ leen lappe lapp yu métti ci championnat bi gannaaw bi Liverpool nekkee champion bi euh, foofu la ci Angleterre am na nag ay enjeux yu mag yoo xamante ni des na sama naataango bi di journal record ne a ah, fu mu toll nii Leicester Manchester United ak Chelsea ku nekk daanaka bëgg na ñu ngi xeex ngir préparer kon Ligue de champions bi jërë ngeen jëf. Savon seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice senegal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi euh, Mohamed Alimu joon euh, jërëjëf li ci yéenekaay yi moo ndar képp yi le xibaar ma fàtte leen lenn ci ponk yi ñu fi jotoon na faram-fàccee laata ñu ñaanalante Mamadou Lamine Samba. Bamba Ndiaye génn na àdduna démb islaam morlock la woon euh, borom xam-xam bu mag la woon nekkoon na jëwri nit ci gouvernement ci nguuru ko euh, nguuruk Abdoulaye wadd tey jii lañu ñu koy jébbal boromam bi ñaari waxtu jotee ca janaay si nekk ca yof nee nañu coronavirus moo ko faat waaye njabootam weddi nañu ko ba mu mat sëkk nee nañu seen baay génnul àdduna ci feebar bi di Covid 19 ñi génn àdduna ci Covid 19 mi ngi gën a yokk démb ñeent génn nañu ci àdduna ñi tëdd ci lalu l'hôpital yi bari nañu. lool ah, tey ñaar fukki nit ak ñaar mooy cas communautaire muy ñi ko am te amuñu te xamuñu kan moo leen ko wàll ah, ca Ziguinchor moom fa ñuy fajee ñi am coronavirus jaaxle nañu lool li waral mooy ah, oxygène amu fa dañuy mujj jëndi gaz ngir miñ cee branchel ñi nga xamante ñoom ñooy maladie loolu indil jafe-jafe ñu bari jàpp ni am na ñaar ñu fa ñàkk seen bakkan te loolu moo ko waral tabaski 2020 ca Sédhiou bu ñu moyul xar dafa am li sabab bi mooy tëj gi ñu tëj frontières yi financement bi nga xamante ni sàmmkat yi jotaguñu ko ba tey tranche de vie tey euh, kii di Pape Mbagnick Ndour la waxtaanaloon euh, mu nekkoon ca hôpital bu Diamniadio ñu toftaloon ci lii di coronews ak Ndate Diop li ci yéenekaay ak Mouhamadou Alimu Ba moo ndar képp xibaar yi ñuy sant di gërëm euh, du coronavirus moo ko yóbbu ñi génn adduna mi ngi gën a yokk ci feebar bi di lëmbee réew mi rawatina Sénégal démb rek ñeent génn nañu àdduna ñi ko am tey ñi leen ko wàll ak fi ñu ko jëlee daañu ko yaatal ci biir xibaar yi Ziguinchor centre de traitement bi nga xam ni moom la ñuy fajee ñi am foobar feebar bi di coronavirus amuñu oxygène di fi ñuy nooyee euh, ñi feebar ñi ñi nga xamante dañoo am ñi feebar Ah, dañuy mujj jëndi gaz ah, ngir mën a ñooñu nga xam ne ñoom ñooy feebar ñu noyyi ci loolu nag indi leen jafe-jafe gu mat sëkk ah, tabaski 2020 bu ñu moytuwul xar du am fële ca Sédhiou li sabab bi mooy frontière yi ñu tëj ak financement yi nga xam ni jotaguñ ci ba tey tranche de vie tey dafa waxtaan ak docteur Mbagnick Ndour pédiatre la mooy faj xale yi nga xamante ni nii ñoom ñoo am feebar bi di Covid 19 Coronews ak Ndate Diop ak. li ci yéene kaay ak Mohamed Aliou Ba mooy ndar képp yi la xibaar Abdoulaye Diop moo nekk ci xarala gi. Mamadou Lamine Samba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci RFM rajo Futur Media ñu tàmbali koog càcc gu ñu ne dañu ko doon sàcc otoog Eumeu Sène ci guddik bërki demb nee ñu nag am na ay nit yoo xam ne dañoo jege Eumeu seen ñoom ñoo dóor waa ji waa ji nag mujj naa ñàkk bakkanam waaye baayu ki génn àdduna ki ñu ne woon dafa sàcc di Mamadou ture joxoñ na baaraam ba tuuma ñu bari nee na nañu ko leeral ba mu leer nañ ndax doomam dañ ko faat euh, ñu déglu ko. man dama yor ay preuve yu wane ni booy bi dañ ko dóor ba mu dee. booy bi dee na vingt quatre heures may doog a xam ni booy bi dee na. donc gendarmerie deful benn effort pour woo papam wala yaayam pour wane ni dee na. bon booy bi dañ ne woon ne dafa dugg kër Eumeu seen ba man loolu yëpp dara leeru ma si. ñi ngi wax rek ku nekk yaa ngi wax mais man xamul lu xew exactement. bëggoon naa vraiment ak lu munti xew lu muntu xew waruñu ko dóor ba mu dee quoi. vraiment bëggoon naa nag gendarmerie def liggéeyam. ñu jaarale ko si yoon dafa autopsie yi wane lan moo ko rey ak pourquoi ñu rey ko ak yooyu yëpp daan dama di convé ko mais man maa fa dem ma laaj ci ay renseignement ñu ne ma ñoom mënuñu la wax dara parce dañ nekk si enquête mënuñu la la wax dara donc booy bi dee na vingt quatre heures man ma koy doog yëpp am na ñaar ñu téegum ne ñoom ñoo def loolu ils sont ak garde à te man sax wóoru damay dégg rek ñuy wax wóoru ma quoi yor ay vidéo yu wane ni booy Mamadou Touré lay wuyoo mooy bàyyi xale bi ñu ne dafa doon jéem a sàcc daamaruk Eumeu Sène euh, dañ doo waxtaan wi nag mi ko seqoon ak Mohamed euh, Alimou Ba jéem nañu jokkoo ak euh, ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène waaye antuwul jombul suñu yeneen jotaayu xibaar daañu ci jokkoo ak moom ñu wax ci génn ko àdduna Mamadou Bamba Ndiaye daanu ko jébbal boromam tey bu ñaari waxtu jotee ca jannaay say nekk ca yof nee nañu nag li ko faat di Covid 19 di coronavirus. Papes mbokk jegewaale ak xarit yi ñoom ñëpp ñoo bokk benn kàddu ñu ne Fatou Bamba Ndiaye perte bu mag la ci mouvement islamique yi loolu mooy témoignage u oustaz Aliou Sall ñàkk nañu benn membre boo xam ne euh, képp ku yëngu ci l'islam rawatina ñu yëngu ci mouvement islamique ak façon bu ñu ci mën a bokkee anam bu ñu ci mën a bokkee xam nañu kan mooy oustaz Ahmed Bamba Ndiaye ci wàllu munadalaam nachataatam ci wàllu muhadaraatam ci wàllu thaqafaam islamiya wa arabiya wa xarbiya moom lañu ñàkk tey ñu ñëpp nu itam bu ëpp fanweeri at Aboubacar Diankhe di wax ne oustaz Bamba Ndiaye jullit bu mat jullit la ndax ay xeexam yoo xam ne daka jagleel diine ji. tey daal euh, kilifa bu mag disparaître na borom xam-xam dem na. ku bëggoon li mu doon def dem na mu de nit koo xam ne dundam bi yëpp daf ko xeexal lislaam dundam bi yëpp daf ko xeexal diina ji ak réewam boo looloo tax mu nekk jullit bu mat jullit nekkoon na jàmbaaru lislaam waaye oustaz Bamba Ndiaye taxaw na aussi xeex lépp luy jëmee kanam doomu aadama mi ngi ci woon mu di kàddu yi président conseil supérieur des chiites du Sénégal Chérif Mballo koo xam ne ku taxawoon la woon am taxawaay bu rafet ci wàllu xam-xam ci wàllu ñeme ci wàllu njàmbaarte wane li nga xam ne moom la gëm mu nekk loo xamante ne ni lu ñu mën a seddale ci moom donc mu nekk nit ku baax un élément boo xam ne bu am solo pour lislaam mais également xeex na ci loo xamante ne ni sax ay cause la yoo xam ne du cause islamique mais yoo xam ne dafa soxal doomu aadama Mamadou Bamba Ndiaye nekkoon ministre ci jamono Abdoulaye Wade armeel Yoff mooy nekk këram gu mujj ba faw na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana te yéexe ñu waaye waa këram euh, weddi nañu ni seen baay di euh, Mohamed Bamba Ndiaye mi génn àdduna coronavirus moo ko rey nee na du coronavirus ñu déglu doom yi Bamba Ndiaye Cette nouvelle, les journaux, je l'ai vu xibaar bi niñ ko gisee ci journaux yi yenn site d'information yi reprendre ko li ma ci mën a wax mooy euh, wérut ndax sans papa ak euh, ay soxnaam ñun ñoo ko yóbbu hôpital bi ñu ko yóbboo ñu def test yi test yi wanewul ne dafa amee jàngoro ji di coronavirus kon niñ ko waxee demewul ni ni mel sans papa malaise la amoon jógee ci ab tension boo xam ne da ko doon faral di dal ci li may wax sax ci jamono Abdoulaye Wade bi ñuy jeexal campagne bi ci atum 2012 lu mel noonu daloon na ko waaye tey jile malaise la amoon yóbbu ko hôpital laalewul dara ak li nga xam ne ni moom mooy Covid 19 bi sama papa faatuwul ci loolu. pour preuve ñun depuis benn weer a ngi ni le kenn defaluñu test et amuñu benn symptôme bu jógee ci jàngoro coronavirus. pousse Euh, leeral leeral yooyu doom yi Bamba Ndiaye ji moom moo ko doon indi ñu wax tey ba tey euh, ci bilangu tey bi ci coronavirus ñi ko am ci réewum Sénégal fu ñu ko jëlee ñan ñoo leen ko wàll ak ñaata lanu euh, docteur Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention moo ñu ci indil ay leeral. ci juróom-ñeenti téeméer juróom fukk ak juróom-ñeenti test yi ñu def téeméer ak ñett ñoo ci positif juróom-ñett cas ak juróom-benn ñoo ci. cas contact ñaari fukk cas ak ñaar ñoo ci transmission communautaire Géejawaay am na ci ñett cas Touba am na ci ñett HLM am na ñaar Colobane am na benn Dalifort am na benn Diamniadio benn Diouloulou benn Diourbel benn Kaolack benn Kër benn Kolda benn Liberté 6 benn Mamel benn Mariste benn pikin benn Thiaroye benn ak Belengara benn ñeent fukki malade ak juróom-ñaar wér nañu te dinañu génn bu ci yàlla àndee tey ñaar fukki malade ak ñaar ñu ngi ci suñu service yi ci réanimation ñeent nit ñoo ci génn àdduna ni ki démb ajjuma ci ñett fan ci weeru juillet bi ministère de la santé di jaal seen mbokk di leen ñaanal aussi yàlla xare leen àjjana ñeneen malade yi des ci hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi mas mi duggee Sénégal jot nañu wàññi juróom-ñaari junni cas ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci jot a am doomu jàngoro ji ci ñooñu ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñett wér nañu téeméer ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent docteur Mamadou Ndiaye nekk directeur de la prévention ci Ziguinchor moom centre de traitement ba ñuy fajee ñi am euh, coronavirus euh, ña fa tëdd sonn nañu lool ndax amuñu oxygène bu ñu noyee ñu bari ca ñoom nag dañuy mujj jëli euh, gaz gaz la ñuy mujj jël ngir ña feebar mën caa noyyi loolu sax moo tax am na ci ñaari nit yoo xamante ne nañu ñàkk nañ ci seen bakkan Ziguinchor Lamine Ba. ñaari nit ñi nga xam ne amee woon nañu feebar bi di coronavirus ñi leen doon topp ci hôpital régional bu Ziguinchor mujj faatu bokk na ci li gën a waral ñàkkum oxygène mural ca centre de traitement ba ba sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xam ne mujj nañ ko jot jamono ji li leen gën a jaaxal mooy oxygène boobee nga xam ne soxla nañ ko waaye duñ ci jot saa su ne ndaxte ci ay bonbon lañ koy def di ko indi mu doon pexe bi nga xam ne nag dëppoowul ak jamono ci ni ñuy fajee ñi nga xam ne ay cas grave lañu te nekk ci salle de réanimation ci xibaar yi nga xam ne jot nañ ko ñu ngi xamal ne daanaka malade boo gis ñu téye ko ci réanimation dina dem ba soxla lu toll ci fukk ñaari bombonu gaz ngir ñu mën koo faj jamono ji nga xam ne nag lii di oxygène mural bi nga xam ne moo dëppook jamono mënoon naa gën a yombal li nga xam ne moo di mbir yi ci médecin traitant yi nga xam ne ñoo nekk ci centre de traitement ba jamono ji nag fajkat ya nekk ci centre de traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor oxygène mural a di ci bonbon de gaz yi léeg-léeg dafay faral di manqué wala sax mu jeex ci jamono ji nga xam ne ñu ngay faj maladie yi te ñu soxla ko bu baax a baax nee nañ nag li gën a waral ñu soxla ko jamono ji mooy Ziguinchor nemmeeku nañ ne daanaka léegi bés bu ne ñi lim fi ñi nga xam ne amee nañ feebar bi di coronavirus loolu tax ba ñu gën a jot ne cas grave yi mën naa bëri bokk na ci li gën a soxal fajkat yi nga xam ne ñoo nekk ci centre de traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor mooy yokk capacité d'accueil bu salle de réanimation wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ñëwee fii ci Ziguinchor yëkkati ni woon na ay kaddu woñu ne bëgg na gën a soppi xarkanamu centre de traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor def ko référence ci ñuy faj coronavirus ci bët saalum réew mi waaye def mel ni loole ba léegi gisaguñ ko Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias Lamine Ba gannaaw Ziguinchor Kolda la ñu jëm foofu askan wa nekk ñoo tàmbalee bàyyi seen loxo euh, ci feebar bii di coronavirus ñu ci bëri du ñu takk masque te respecté wu ñu geste barrière yi loolu moom moo tax am nañu seen kaa bu njëkk Abdoulaye Diallo. bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi tey la département bu Kolda daal di enregistré cas bu njëkk ci jàngoro yi coronavirus mu doon ab cas communautaire te situation bi ni mel bettul ñu bëri fii ci Kolda. comme El Hadji Koli di ki nga xam ne mu ngi bokk ci ñiy saytu ni mbirum jàngoro bi di demee ci biir diwaan bi. wax dëgg fa yàlla mënoon nañ ko xaar lii warul bett kenn lii warul bett kenn ndax depuis bi ñu levé li nga xam ne daal loolu mooy mesure de restriction yi. boo duggee ci biir Kolda ci dëkk bi boo demee côté marché boo xoolee ci transport yi boo xoolee ci tali yi boo xoolee ci place yi wax dëgg fa yàlla dafa mel ni nit ñi dañoo fàtte ni feebar moo fi am nit ñi dañoo da mun naa ne sax nit ñi dañoo dem ba relâché ca même waxtu ñoo ngi doon annoncé ñaareelu cas communautaire ca Vélingara ca Vélingara doon département bu diwaanu Kolda bi réunir condition yëpp ngir jàngoro wi di fa law wax dëgg fa yàlla euh, Vélingara nekk na département boo xam ne euh, position géographique bu mu am ci biir euh, Sénégal Euh, nekk na position géographique boo xam ne wax dëgg fa yàlla euh, rafetul maanaam nekkul nekkul position euh, géographique boo xam ne dina tax ba feebar bi du am Vélingara c'est-à-dire situation boobu moo tax Vélingara nekk département boo xam ne exposé na maanaam nekk na ci loo xam ne daal jàngoro pour mu dugg Vélingara dafa yomb. fu mu ne nii waa kër docteur ñu ngi xool ndax dinañu jéem a gis nit ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne dañoo laale woon ak aji wopp yile RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo ci Mbousnakh Ngor moom Mbousnakh Ngor mi ngi nekk ci commune bu Notto Diobass foofu askan wa ña yëkkati seen kàddu di ñaawlu nee ñu amuñu béréb bu ñu fajoo ndax seen case de santé bi ñaari at ngi nii euh, dafa tëj euh, te amuñu sax ñu leen faj euh, ñu ci bari ci ñoom dañuy dem ca Ngunjaan mbaa ca Taset leneen loo xamante ni ñu ngi koy sàkku mooy yoon wu ñu jaar Cheikh ante Diop. ñu ngi fii ci mbuus naax ngoor di ab dëkk boo xamante ne dugg fi yombul fii de ganus la da ngay jaar ci dëkk dëkkaan yu bëri laataa ngay dugg ci dëkk bii de askan wi nag nee nañ neem nag seen kilifa yi am na lu bëri lu ñu def ci dëkk bi waaye nag lu jëm ci wàllu jumtukaay ay bërëbu fajukaay amaguñu ko nag case de santé bi nga xamante ne dañ ko fi tabax ay at a ngi nii kenn ubbiwu ko te amul benn matériel Moussa Ngom mooy chef de village bi. gis ngeen ko case de santé bi defar nañ ko ba muy jekk suñu sañoon itam ñu wax ngeen dimbale ñu ci li ci war nekk ba nit man cee nekk di faju tabax bi jëkk na waaye amuñu ay garab ñu ngi ñaan itam am ay garab ba man cee faju ah lu bari ci dëkk bi itam courant bi bi daanu woon ñetti at a ngi dañ ko yeew ay buum moo ndax daanu woon na bay laal ñag bi ñu puus ko nag tàkk ko ay buum. lu jëm nag ci wàllu dund bi nga xamante ne nag ñu ngi ko doon séddale jëm nag ci wàllu jàppale njaboot gi ci feebar bi waa Mbousnakh ngoor ni nag jot nañ ci seen wàll kontaan nañ ci lool. waaye nag wax dëgg yàlla alhamdulilah ñuy sant yàlla di sant nguur gi ndax itam euh, nit lu mu la defal ci dooleem war nga koo sant. tax ab du Sène mi nga xamante ne moo yor kàddu ndaw ñi moom it di gën a ñaax askan wi. ci feebar bi. mesure dara yi ñu fi waxoon respecté nañ ko trop kenn demul kenn du ko fii itam parce que jeunesse yi am nañu fulaak fayda bu ñu gisee foo xam ne foo jógee nañ la dénoncé di remercier particulièrement monsieur le sous-préfet de la commune. ndaw ñi nekk fii ci Moussinax nee nañ sax ñoom am nañu taxawaay boo xamante ni dañoo bëgg lépp loo xamante ne dëkk yi de am nañu ko ñu indi ko fii ci Moussinax Ngor ngir fexe nag ba ndaw ñi dootuñu génn di dem cees wala Ndakaaru di utum xëy RFM cees Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop ca Linguère moom ngir xeex ak feebar bii di sibiru tax na nu jël ay eh, aji fatkat yu bari yi toll ci téeméer ak eh, juróom-ñetti fukk taxawal nañ taxawal nañ fa tamit lépp juróomi poste de santé Baye Assane Diawo. Barkeeji Touba Linguère Jagali Gassane ak Thiel ñooy juróomi poste de santé yi campagne bi jóg ngir wasaare produit te muy faagaagal yoo bi joxe sibiru daal di ñeel élage Hadj kuré di médecin. tey liggéeyee ci programme bi saytu mbiru sibiru ci réew mi. yoo bi la ñu bëgg a faagaagal de sorte que du mën a jëlee doomu jàngoro bi su nit ku amee feebar bi jàllale ko ci koo xamante ne ni dara jotu ko donc produit la boo xam ne dañ ko war a pompe ci biir kër yi ci biir néeg yi maanaam fi nit ñi di nekk su ko defee mu des ci mur yi mën na fa def diir diir boo xamante ne mën na mat ba juróom-benn weer yoo bu ci takk daf koy rey moo xam da koy rey ci saa si moo xam da koy rey ci ay waxtu yu néew mais yoo boobu moom dootul mën a wàll kenn. ju takkoo takku rawatina am mbooloo ngir ñu mën a matal bi li liggéey. campagne la boo xamante ne bu diis la bu laaj euh, maanaam jumtukaay ak ay nit yu bari ñu jàpp ci pompe bi euh, li ñu war a traité lu tolloog ay seize mille pièces moom la ñu war a traité donc dafa laaj nit ñu bari euh, district bi nag ànd nañu ak moom. mu recruter ay doomu aadama yoo xamante ne ñu ngi dëkk ci Linguère ñu war leen a former ci naka la ñuy utiliser pompe yi pour pompe kër yi foofu nag service national de l'hygiène dugal na ci loxoom. campagne bi jóg ngir lor yoo biy joxe siburu mi ngi tàmbali ci waxtu woo xam ni ñëpp a ngi bàyyi xel ci mbas mi wante bu ñu sukkandikoo ñiy saytu mbiru siburu ci biir réew mi ñi ngi xam la ne li siburu di faagaagal moo ëpp fuuf lii di coronavirus di faagaagal RFM Linguère Baye Assane Diaw. benn waxtu du une teg na fukki minute ak juróom ci Sandaga ak li ko wër. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. Mamadou Lamine Samba. bu ñu nee Sandaga rek xel yëpp dem ci wàllu cosaan jamono yi colonisation lañu ko taxawaloon booba ak léegi waaye ay bés a ngi nii amul bés bu yàlla sàkk boo xamante ni nii doo dégg coowal Sandaga euh, ëttu yéenekaay yëpp di ko wax euh, ba tax na suñu reporteru tey bi di Fama Dione dem wane lañu ak marché Sandaga. ñu tabax ko ci atum 1935 nekk ci xolu ndakaaru Sandaga nekk ci diggante avenue Émile Badiane ak avenue Lamine Gueye ku fa romb say bët gis Sandaga marché Sandaga nekk ab patrimoine national ngóor si nekk na fa fanweeri at ak juróom a ngi nii gis na lu bëri loo xamante ni xew na ca Sandaga. Sandaga dem ak Sandaga tey am na tuuti wuute parce que Sandaga dem wax dëgg yàlla dem mën nañu wax jamono Abdou Diouf daal commerce bi ci la gënoon a ci la gënoon tegu ci yoon parce que boobu tamit nit ñi vraiment respecté woon nañu normes yi nga xamante ne moo am ci commerce yëpp mais xam nga bi Ablaye Wade ñëwee ak Macky Sall ñoom tàlluñu sax nag commerce bi tàlluñu ko organiser mooy nekk euh, li waroon a am amul. fu soriwul dara Moussa di réparer ay appareils électroniques moom nag mi ngi ci Sandaga atum 2010 ba léegi nangu na ni Sandaga soppi na xar kanam ndax lakk yu bëri yu fa am. depuis ba mu lakkee ba nag ba léegi moom am na différence parce que client yi ni ñu doon ñëwee bu njëkk ni ñëwee léegi bokk waaw. loolu daal laa fi gis comme différence bi bi muy dox booba képp koo xam te ne da jënd dara yow sant gi ngay ñëw léegi nag bi ñu déggee ne marché bi lakk na topp ñu loolu ngir ñu jënd ab jiin mu jëntal gi nañu sëq ak moom waxtaan ay jiin yu nice jiin indi ma tey beneen yoon na bàyyi beneen ah, bi may dégg mooy maa ko doon dégg ñu ne marché bu dox la wax ah, na gars ñoo koy ñooy jabuli marché Sandaga rek ba marché bi xaw a kii rek. marché Sandaga nekk ab barab boo xamante ni xumb na loolu boo foram bee gis jaaykatu lekk yee jaaykatu tus yi ñu jaay dàll ak leneen bâtiment bi nga xamante ni moo tax ñuy wax marché Sandaga nag nee nañ daañu ko toj bu ñu jullee ba ci ginnaaw ëllëg autorité yi ñoo ko wax. coowal suuf la ñuy wax fële ca Ndiafaat ngir fexe ba mu dakk loolu moo sabab maire ya nekkee ca Sine yu yëpp daje euh, ci kaddu seen kaddu Aysatu Njaal Njaay Taal euh, di sàkku ci maire yi ñu xool nan lañuy ñuy séddale suuf si euh, ba askan wi bañ cee mer ñu déglu ko ci micro Ibrahima a di lancer un appel les maires bu ñu joxeeti suuf aussi ñu koy jox si li nga xam ne mooy intérêt askan bi. parce que tamit loolu mooy dëgg bu dee dañuy dimbale le président de la république Macky Sall bu dee tam dañu war atteindre un niveau de développement bi nga xam ne war dañ fa bugg a yegg kon war nañu def lu ñuy def ñun les maires damay ñaaxaar rek wax dëgg yàlla euh, pointé wu ma kenn di doigt waxuma kenn moo def parce que yëf yi mu ngi si loxo yoon yoon moo xam kaw wax dëgg ak kooku dëgg presse bi rek wax dëgg yàlla la ñuy dégg bu ba léegi muy wax dégguñu les concernés wax dëgg yàlla ñu wax exactement ne problème bi lii ak lii la bës bu ñu leeree nag xëy na nañ ci dellusiwaat wax leen waaye dañuy lancer waat appel à nos collègues maires ñu bàyyiwaat xelkat ne suuf si euh, ñun nañu accompagner askan bi parce que mënuñ ko aussi jël suuf si rek ko noonu wax dañ ko mais buñ ko exploiter tam ñu koy exploiter li nga xam ne ñun njëriñu ak sàkku ci nguur gi ñu jàppale leen ci ñu mu gën a gaawee Mamet Nabi laa nee na jokkoon na ci maire ba sax waaye maire ba mujj ko wuyu yenn ci askan wi dëkk ci sanc ba gàdd ga 1 ci Ross Béthio ñaawlu joxinu suuf goo xam ni def nañ ko ci bërëb bile ñoom ñu def ndaje ci bërëb bi ànd ci ak ñenn ñu bokk ci conseil de quartier bile. jaara Samba dem conseillère de quartier la gàdd ga sanc ba 1. boo amee say toolu maam bu ñu la dédommagé wul sax normalement. ci li ñuy waxoon li bi ñu jëkkee woo di réunion ak ñun dañu ne woon même bu ñu amul dédommagement balaa ñuy daggal kenn ku fi am sa toolu maam yow la ñuy daggal ba pare. gàdd gi suñuy doom suñuy doom yu góor ku nekk yaa ngi sa kër leen gën a ëlëm koppar yu ñu jël joxe ko te tey jii ñu gis boo di konte ci joxen bi ñun ku nekk sa da nga verse say doom dañu verse ñun suñuy doom kenn si ñoom génnul te ñëpp a am na ñoo xam ni ñi ngi ci biir sànq bi versé wuñu te jot nañu seen i loo 35200 bu ney na jëy lañ ko versé. gannaaw acte yu ñu def maire commune bu Ross Béthio ñoo ngi woo njiitu réew mi ngir mu indi ci saafara balay jëyee di am. ñun daal Macky Sall dañu bëgg mu dimbali ñu ndax si njabootam la ñu bokk. négocié nañu ba waaye fu mu jëm du neex de xanaa bakkan bu tëdd rek mais duñ ko nangu moom ndax li nga moom say maam moom ko nga xëy gis ko yow say doom versé nangu versé seen xaalis te seen alalu maam ñu verse seen xaalis ba pare ñu daggal ñoo xam ni wu ñu sax loolu c'est pas normal Macky Sall dañ koy lancé appel nañu jàppale suñu maire bekkaay Diop yëg na mbir mi ba tey àdduwu ci jabootam la ñu bokk ndax Bekaay Ross Béthio la dëkk jéemub jokko bu ñu def ak maire Ross Béthio taxul mu wuy téléphone RFM ci ndar géej Mohamed Nabi Silla pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. tabaski ca Sédhiou bu ñu moyul xar dana fa manqué li sabab yi mooy frontière yi ñu tëj ak euh, financement yi nga xam ni sàmmkat yi doon nañu ko jot ci banque yi boobu ak léegi jotuñu dara Max Euclid Kamfani yi bu ñu nemeeku ci jot financement yi mën na indi gàllankoor opération tabaski ci Sédhiou loolu lay xamal ñu yëngu ci càmm ji ñoom sax xamal ni ba na ñu jot koppar boobu ay weer balaa ñuy jublu ci mbir mi waaye teewul ñoom taxaw nañu ngir diwaan bi am ay xar yu doy te ku si nekk mun si gis sa bopp Amadou Sow moo jiite regroupement ñu yëngu ñu jox lu des fii si tabaski motul weer loolu suñ la ko joxee ñu ne la trois mois loolu problème la lay indi loolu moo tax ñu su fekkee ñëw nga nga sa xar balaa ñu lay fay banque bi taxaw sa la ñetti weer fekk amoon nañ xaalis dem jënd te mën ñu yafal foofu ngay dem jënd ren bu soobee yàlla xar dina am kenn ku nekk doo am doo yelloo di ko am yu baax dina ñëw prix dinañ tane. beneen mbir bu mun a indil la gàllankoor bile opération ci diwaan bi te mën a tax njëgu xar mi te mën a tax njëgu xar yi cher muy nu ñu tëjee frontières yi waaye ci bile mbir ku jiite service régional élevage ak production animale docteur Abdou Sané di dalal xel yi. promoteurs yi ak opérateurs yi nga xam ne dañu amoon habitude di jaaree par Gambie dootuñu ko mën a def ndax ni ñuy tëjee frontière donc dañuy obligé di jaar par euh, Tamba loolu moom mën naa jouer. jàppale ci vraiment approvisionnement marché wu Bounkiling mais wallu boobu yaakaar naa moom approvisionnement bi moom sax mi jiite service régional élevage ak production animale xamal ni seen wareef ngir jaaykati xar yi bañ a noot askan wi mooy ñu fexe boo marché bi bëri ay xar. bu marché bi amee lu doy ak njëg yu baax nit ñi dinañ ci mën a trouver seen compte. ci at bi lu ëpp sept mille ay xar ñi leen di xaarandi ngir yokkal diwaan bi te it askan wi ku si nekk mën a am xarom Max Euclid Kamfane ci Sédhiou ngir RFM. Euh, ca Louga moom sàmmkat yi nee na ñu ne ñëpp seen xel dal xar dina am dina am sécurité muy kaaraange euh, ci fi ñuy jaayee xar yëpp ndox it euh, ak éclairage it que saalika naka noonu loolu ki ko wax di préfet bu département bi Abdoul Aziz Tall ci micro Abraham Paul Pouy ren tamit vraiment dégagé nañ ay perspective jula yi dina ravitaay marché yépp si moton incha allah xar yi dina matele si département bi point de vente yi mën nañu wax ne point de vente yi fi daa jël rek moom la ñuy jël biir Louga am na quatre points de vente soo demee arrondissement Koki am na fa trois points de vente soo demee arrondissement Sakal jël nañ trois points de vente arrondissement Mbédiène deux points de vente arrondissement Kër Momar Sarr euh, quatre points de vente si mbirum sécurité aussi wax nañ ko nee nañ euh, collectivité territoriale yi jël nañ ay engagement que dinañ def tous les moyens ba lépp loo xam ne war na si daral yooyu mu am fa. ndox éclairage gendarmerie ak police aussi jël nañ engagement ne dinañ assurer sécurité bi. leneen li si des mooy dañu nekk si période mbas mi. là aussi euh, donc contexte bi mooy tax vraiment ñu war a jël yeneen jumtuwaay moo tax. ñu ñu ñu soññ leen vraiment collectivité territoriale dañ leen appuyer vraiment ñu jël matuwaay yi ci war yépp da telle ko que mënu mën a jaay vraiment te respecter mesures barrières yi nga xam ne moom la autorité sanitaire yi digle. ñaar fukki minutes ak euh, ñett ñeent moo tegu ci benn waxtu xibaar yi di wéy ci RFM. ak RFM. RFM. nag yéen. soobu ñu ci ñaareelu xaaju xibaar yi ñu tàmbalee ko ak coronews di feebaru coronavirus ni mu lëmbee ci àdduna ak ci réewum Sénégal Ndate Diop. mbas mi di wéy di law ci àdduna wërngal këpp organisation mondiale de la santé ñi ci jamono ji juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay junni yu tegal ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci ay doomi aadama ñàkk nañ ci seen bakkan ci àdduna wërngal këpp mu ni ña ca am doomi jàngoro ji ëpp nañu fukki million ak juróom téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay junni yu tegal ñetti téeméer loolu nag ñu jàpp ko ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom benn ci ay réew tax ñi di waa OMS di wax réew yi nga xam ni jàngoro ji dugg na fa ñu yeewu te gën a wéyal lii di xeex bi ndax lii di wopp ji du loo xam ne nii dafay gaaw a génn ci àdduna wërngal këpp ci classement réew yi nga xam ni ñoom ña jàngoro ji gën a laal réewum États-Unis moom moo nekk ca bopp ba foofa ña fa faatu rek toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay junni yu tegal ñeenti téeméer ak juróom di ab record boo xam ne nii nëbb na bisub tey bi nga xam ni ca lañuy màggal seen fête nationale Brésil Royaume-Uni Italie ak France ñoom ñoo ca topp ci bisub tey nag ba jàngoro ji jibee ba léegi Amérique latine di romb continent bu Europe ci ñi nga xam ni am nañu doomu jàngoro ji ak lu ëpp ñaari million yu tegal juróom-ñaari téeméeri junniy malade naam sax Europe mi ngi wéy di nekk continent bi nga xam ni moom moo ëpp lu mu ñàkk ci ay doomi aadamaam ci réewum France moom diggante démb ak tey wàññi nañu lu toll ci fukk ak juróom-ñett doomu aadama yu yees yoo xam ne ni génn nañu àdduna maanaam ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci kilifa ya kon France ci jamono ji ña fa jige lool fanweeri junniy doomu aadama ca Espagne moom wopp ji di wéy di fa lëmbee ci région bi ñu duppee Catalogne confiné nañ fa lu tolloo ko ñaari téeméeri junni ci doomi aadama ci samedi ji mu di loo xam ne nii kilifa yi ñoo ko jël ndax dañu gis ni wàllante ba ca boobab gox nekk na lu fës lool jamono jooju ca Russie moom yegg nañ ci fukki junniy doomi aadama yoo xam ne nii ñàkk nañ seen bakkan wàññ ba ca mujj ci diggante démb ak tey toll ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay doomi aadama bu ñu yëree xëtu gouvernement ba ca Chine fa nga xam ni fa mbas mi doore woon ñoom ñoo ngay wéy di ubbi seeni buntu maanaam di wéyal lii di déconfinement ba ca Pékin sax kilifa ya la ñu wax nee nañu li nga xam ni moom moo di volaille di xeetu yàpp yi nga xam ni ñoom ñooy jóge ci ginaar ak lu nuroog moom dinañ ko tere ca ya Angleterre moom di wéyal ndànk-ndànk lii di ubbeeku ga tey jii ci samedi ja la ñuy ubbi lii di restaurant ya salle de ya salon de coiffure yi ak yeneen i bërëb mu di décision boo xam ne nii yenn doomu Angleterre yi sax àndu ñu ca ndax nee nañu loola mën naa yokk lii di feebar ba ca réew ma mbas mi di wéy di law ba tey ci déndu ko Afrique ci bisub tey ñu jàpp ni fukki junniy doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan Afrique du Sud Égypte Nigéria Algérie bokk nañ ci réew yi nga xam ni ñoom la coronavirus bi gën a jàpp mu di loo xam ne nii tax na mbootaayu xeet yi di xamle ni boo moytuwul ci dënd yi di Afrique sowu jant ak Afrique centrale xiif bi dina ko gën a laal organisation Nations Unies ni fii ak at mi di jeex lu jigee juróom fukk ak ñett ci ay millions doomu aadama lii di xiif bi dina leen laal réewum Sénégal moom ñeenti doomi aadama dolleeku na ci ñi nga xam ni mbas mi faat na leen ba mu duggee ci réew mi ba léegi lim bi toll ci jamono jii ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent. Ndate Diop euh, tranche de vie tey hôpital bu Diamniadio la dem mu ngi waxtaan ak euh, Papa Mbagnick Ndour euh, Papa Mbagnick Ndour pédiatre la moom nag yàlla dafa def muy faj xale yi nga xamante ni nii ñoom la Covid 19 bi dal Salimata Aw. bi mbas mi tàmbalee ba léegi ñu koy xeex yëf yi mel na luy gën a tar. salaamaaleykum man. Euh, mooy docteur Papa Mbagnick Ndour donc euh, médecin la pédiatre bu nekk ci centre traitement pour enfants de Diamniadio docteur Mbagnick Ndour gàddu ci ndoddam ay xale yi nga xamante ni ñoom ñoo am lii di coronavirus fële ca centre bu traitement bu Diamniadio def naa sama soutenance de thèse doctorat en 2012 après la tàmbale sama étude pour doon spécialiste en pédiatrie 2013 donc depuis 2017 laa am sama diplôme pédiatre depuis boobu ba léegi maa ngi woon si hôpital pour enfants de Diamniadio fa doon seet. bi mbir mi tàmbalee kenn forcé ko moom mu jug taxaw di day dugal loxoom ca xeex ba mu nekk loo xamante ni nee na ko benn yoon. depuis début pandémie bi donc euh, dañoo laajte woon ay volontaires je me euh, léegi man ma nangu woon doon volontaire pour ñëw si CDE bi. pour euh, jël en charge lépp luy xale bu feebar bi tout tout tout donc euh, moo taxoon euh, ma décidé woon ñëw fii pour jàppale samay morom docteur yi ma fi fekk yëpp pour euh, ñuy jëlee en charge xale yu xam ne ni dañoo amoon jàngoro bi. liggéey bi bari loolu ca bërëb yi ñuy fajee pédiatre bi di rafetlu nañuy àndandoowee di xàccandoo di doorandoo ngir paj mi mën a yemb. depuis le bi commencé nag am na chance fekk bi samay rakk sama ay collègue docteur maa leen jiitu fak nag samay jeune lañu mooy docteur Maguette euh, mais mais moom mi di responsable CTE bi ak docteur Wali ñi di pneumologue aussi interne aussi donc euh, bu mu leen fekkee fii aussi ñu ngi liggéey en ak yeneen euh, docteurs yi moo fi fekk sixième septième année ñoom aussi ak infirmier yi donc fii lépp liggéey bi yëpp ñu ñëpp ko bokkoo ku nekk dafa am lu mu siy def. médecin généraliste bi daanaka benn fan lay noppalu ci semaine bi mu ni loolee. li tax mu mën a jaar yoon mooy jàppandalu famille am. c'est vrai woon na trop sama famille bu mu leen waxee nii dama watu woon volontaire pour euh, <clears throat> dem si sans traitement bi comme ni ñu ko xamee woon ni ñu ko doon déggee si télé bi donc euh, xawoon na leen jaaxal mais après bu mu leen expliquer ni euh, médecin la aussi te yàlla ko dogal donc te sama rôle mooy. saa yu population bi soxlee lépp lu nga xam ne nii war naa si mën dara aussi war naa si mën ñaan yeeg li nga xamante ni moom mooy ñiy faju ba wér lañ leen di dénk ak kontaan ga ñuy nekk ci ñoom nee na loolu mënul sax wax lan lay def ci ñoom. lu gën a neex si faj mooy euh, nit ki ñëw ak jaaxle woon feebar bi jaaxle tut nga toog ak yàlla jàppale la ba muy génn. ñu faj ko ba mu génn te suñ ko wàccee ak jour yu mu passé fii yëpp duñu xamee ndax tonne yu ñuy sol leen génn ci suñu wàccee dangay gis kuy laaj ah kii mooy diw kii mooy diw ak ñaan yi ñuy ñaanal di ñu remercier par rapport ak euh, lépp lu ñuy def si ñoom loolu dafa neex si xol parce que loolu kese lañu am santé bi loolu dong lañ si am. message bi nga xamante ne nag moom lay joxe nee na changé wut benn yoon nañu sàmmoon sàmmoonteeg digley kër docteur ndax virus bi tukkiwul. mi ngi Sénégal. fu mu toll nii c'est vrai que levé nañu lépp mais fii la ñu war a gën a mën a yokk suñu geste barrière pour aar ci feebar donc loolu nit ñi ñoo ko war a def moytu lu bëri parce que suñ ko defee pour ñun sax mais nañ ko defal pour suñu waa kër. Savon Marseille Alfé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mohamed mu Ba moo ñu ko nafaral. dal leen ak jaam yi nekk Sandaga daanaka am nañ lu ñuy woowee sursis ko nekk xam na démb moo nekkoon dernier délai balaa ndaraan ñi di dugg di rajaxe jëlee foofu marché bi di ko raser complètement sama yi ñu laaj ko lan moo tax gouvernement bi nguur gi reculé Abdou Karim Fofana ak di Aly Ngouille Ndiaye reculé ñu laaj sama naataango lan moo waral nu mel ne waaw yàlla jàppale ndaxte président Macky Sall dégg na leen réunion boo xamante ni commerçant yi ak autorité yi ñu ko doon def sama naataango yi ne ah marché bi nag ko may sursu rek de ndaxte bu ñu demee ba tabaski teg ñaari fan dañuy kon indi ndaraan yi xaase ko sama naataango ne ah am mode compréhension daanaka Sandaga dañ ko sauver de justice gannaaw ñaane njëkk ak ay médiateurs yu bëri yoo xamante ni bokk nañ ci journal L'Observateur ne bokk na ci kii di Grand Serigne de Dakar Dakar bokk ci itam kii di xalif général des Mourides ñoom ñëpp ñoo ñaan njëkk pour commerçant yi balaa ñu leen di may li nu mel la sama naataango ne ah am nañ lu ñu bëggoon waaye nag boo xoolee bu baax état bi daanaka dafa reculer ñu laajaat sama naataango lan moo tax ma wax li nu mel mu ne ah man commerçant jaaxal nañ ma lii la ñuy wax daaw lii la ñu waxoon autorité yi autorité bu ñu bëggee raser marché bi lañ leen newoon nañ leen may ñu jaay ba pare tabaski bi jeexee ñu mën a kon def luñ bëgg loolu jeexee bi ñu bëggee raser marché bi ñoom dañoo newoon seen bagage ñu ngi foofu nañ leen may ñu ñibbi si ndakaaru kon yëf yi noonu la continuer ba tey jii nii daanaka def na un an sama naataango ne ah commerçant yi dañuy naxee ak muus ñoom daanaka dañuy def lu ñuy woowee une fuite en avant su ko defee ñu bañ a toj marché boobule may leen espace bu ñu jaayee waaye nag ndax ñun dañuy mën a wayaase dugg ci espace Europe bi ci Covid 19 bi Europe am na ay réew yoo xamante ni nee na leen mayu leen ñu dem foofu leen man xataango ne ah Sénégal nee nañ bokkul ci boobu boobule moo ne de Union européenne nee woon na Sénégal mi ngi ci liste boobule ñu laaj sama naataango lan moo xew journal Le Quotidien ne man de daal jot na dalal ambassadeur Union européenne man maa ngay sol Sénégal bokk na ci wala bokk mu ne ah man de man bu dee yàlla itam ah nañ waxante dëgg Sénégal bokk ci fu mu toll ni Sénégal techniquement bokk ci waaw loolu laa mën a wax journal l'observateur ne waaw Irène Mangasson lan la nekk di wax sama naataango bi l'observateur ne ma wax leen nag tey lan moo tax gars yi waa reculer premièrement dafa fekk kii di ministre des affaires étrangères Amadou Ba jot na dalal kii di Irène Mangasson waxtaan ak moom ne ko ah yow lu nga xam noonu yow yaa ko wax wala lan la ah sama ci la changé ne ah techniquement Sénégal bokk ci ñu laaj waaw techniquement lu mu wax noonu loolu mooy laaj ah moom nag mu ne boo xoolee bu baax nu manta mel Sénégal munoo voyager par avant le quinze ndaxte ci lañ ubbi frontière aérienne yi ku ne xam na lu mel kon techniquement munu nekk moo tax dañ ci war liggéey su ko defee balaa ñu yegg foofu Sénégal bañ a nekk ci zone rouge boobu leen